أجا قلبي ngir seen dem ak dikk bu ànd ak jàmm ci gàmmu gi agence nationale de sécurité routière ANASER kër gi yore kaaraange yoon yi bootu ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem ak dikk bi ñoo fas yéene am taxawaay bu am solo ci kaaraange képp kuy dem ak di ñëw ci yoon yi ci loolu na ñépp topp digle yi xool sa wata bu baax balaa ngay jël yoon moytu vitesse bu romb li ñu la laaj xalaat di noppalu ngir moytu gëmmentu ci walang ak coono waneel signal bu leer waree taxaw bul fàtte takk sa ceinture te bul di jëfandikoo sa téléphone bu leen jëlit dara lu leen di tàqale ak seen sago yoon sax da koy tere agence nationale de la sécurité routière ak ay partenaire am ñooy ànd ak yéen ci gàmmu gi door ko ñaar fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre ci campagne bu rëy di leen seetal seeni oto te doo leen fay dara ci tali yi ak autoroute yi ñuy sàkku ci ñépp ñu sàmmoon teg teg njeextalu code de la route ngir kaaraangeeg ñëpp kaaraangeeg yoon mbiru ñëpp la agence nationale de sécurité rutière ànd ak ay partenaire am ñoo leen di ñaanal yooru jàmm ci gàmmu gi